yarub juróom benneel ba taab ya
ba loolu amee aji sax ji wax musa ak aarona ne leen tibb leen seeni loxo doomu puuru ban ba mu fees musa xalab mu jëm asamaan firawna di ci gis su ko defee doom bi doon pënd bu sew ci kaw réewu misra gépp daldi def ay taab yuy sotti dët ci réewu misra gépp nit ak mala ñu sàkk doomu taal àgg ca kanam firawna musaa xalab doom ba mu jëm asamaan doom ba def ay taab yuy sotti dët ca nit ñaak mala ya ci kaw loolu ñengokat ya talu ñoo janook musaa ndax ay taab ñoom ak waa misra gépp teewul aji sax ji dëgëral bopp firawna mu të tànqam lu leen muy la aji sax ji waxoon musaa
yarub juróom ñaareel ba tawub yuur ba
aji sax ji waxati musa ne ko teela la xëy ca firaaw na ëllëg nga wax ko ne ko aji sax ji yàllay hébré yi dafa wax ne bàyyil sama ñoñ ñu dem màggali ma ndax kat bii yoon maa ngi di yebal sama mbugal yépp ci yow ci sa bopp ak say dag ak sa waa réew ngir nga xam ne awma moroom ci àddina wërngal këpp nega ni tey doon naa xàcc sama loxo xaat duma leen mbas mu leen di fare ci kaw suuf yow yaak sa waa réew waaye maa la musal te li ma ci jublu moo di won la sama kàttan ba sama riirum tur dajal àddina ndaxam yaa ngi réy réylu ci sama kaw ñooñ ba tey bañ leen a bàyyi ñu dem te kat nega ni ëllëg dinaa taw yuur bu rëy bu mësula am misra ba mu sasoo ba tey ji kon nag sa jur ak mboolem loo am te mu nekk ci biti booleel fat fu wóor ndax lu nekk ci biti te fateesu ko su tawee dee muy nit mbaa mala ba mu ko defee ña ragal kàddug aji sax ji ca dagi firawna fat seeni jaam ak seeni jur fu wóor ña faalewul kàddug aji sax ji ñoom wocc seeni jaam ak seeni jur ca biti aji sax ji ne musa yëkkatil sa loxo ca kaw mu jublu asamaan ngir taw yuur bi dal ci réewu misra mépp nit ak mala ba ci lépp luy gàncax ci réewu misra musaa ne yëkkat yat wa mu jublu asamaan aji sax ji yebal dënu baag tawub yuur ba sawara wane yu réet fi suuf ànd ak tawub yuur ba aji sax ji sóob ca réewu misra tawub yuur ba rëy lool ànd ak sawara wa jaxasoog yuur ba di xuy xuy muy guleet ca cosaanu réewu misra ba bésub keroog tawub yuur ba dal ca mbooleem réewum misra daaneel lépp lu ne woon ca biti nit ak mala daaneel gàncax gépp dammat garabe ca àll ba yépp diiwaanu gosen ga bànn israel dëkkoon dong moo mucc ca tawub yuur ba firaaw na nag yónnee woolu musaa ak aarona mu wax leen ne leen bi yoon de maa tooñ aji sax ji moo nekk ci dëgg te maak sama waa réew ñoo sikk tinu leen aji sax ji ndax dënu yu mag yeeg taw yur bi dakk dinaa leen bàyyi ngeen dem deesu leen fi téyeti musaa ne ko bu may génn dëkk bi rekk di tàllal aji sax ji samay loxo dënu yi dakk taw yur bi siwet ngir nga xam ne àddina aji sax jee boroom waaye xam naa ne loolu du tax ba tey nga ragal yàlla aji sax ji yow yaag say dag fekk na gàncax ga ñuy defare wëñu lin yàqu na mook peppum lors ba ndax lors baa nga tollu woon ci waaja focci gàncax ga ñuy defare lin di tóor waaye xeeti peppi bele ya lenn yàqu ca ndax yooye mujj ñor naka la musaa bàyyi ko ca Firawna ba génn dëkk ba rekk daldi tàllal aji sax ci ay loxoom dënu yaag taw yuur ba ne tekk taw ba siwet ba mu ko defee firaaw na gis ne taw yuur baak dënu ya dakk na mu tëwati ticc moo ki dagam dellu ci tooñam firaaw na të rekk bañ a bàyyi bànni israel ñu dem muy la aji sax ji waxoon musaa jotale
yarub juróom ñetteel ba njéeréer ya
ba loolu weesoo aji sax ji dafa wax musaa ne ko demal ca firawna maa dëgëral boppam moo ki dagam ngir jëfe samay firnde fi seen biir su ko defee ngeen mën a nettali seeni doom ak seeni sët ni ma torxale waa misra ak sama firnde yi ma def ci seen biir ndax ngeen xam ne man maay aji sax ji musaa ak aarona nag dem ca firawna wax ko ne ko aji sax ji yàllay hébrë yi dafa wax ne siide nga ma nangul daal waaw foo àpp sa ngàntal ak man bàyyil sama ñoñ ñu dem màggali ma soo bañee bàyyi sama ñoñ ñu dem kat ëllëg dinaa wàcce ay njéeréer ci sam réew dinañu lal dendu réew mi ba kenn dootul gis suuf dinañu lekk lu fi taw yuur bi bawoon te garab yi ci seeni tool yépp lañuy lekk te itam dinañu fees say biir kër ak sa këri dag yépp ak këri waa misra gépp muy mbir mu say maam ak say mamaat mësula gis ba ñu ganee àddina ba bésub tey ji ba loolu amee musaa wëlbatiku bàyyi ko ca firawna dagi firawna ya wax firawna ne ko lu nuy seetaanati waa ji dinu yóbbe aw ay bàyyil bànni israel ñi kay ñu màggali seen yàlla aji sax ji xanaa yëguloo ne misra tas na ñu delloo si nag Musaa ak Aaroona ca Firawna mu ne leen dem leen màggali seen yàlla aji sax ji waaw ñi dem sax ñan la Musaa ne ko nun ñéppay dem kay mag ak ndaw dañuy dem ànd ak sunuy doom góor ak jigéen ak sunuy jur gu gudd ak gu gàtt ndax màggaluk aji sax ji la ci nun Firawna ne leen ah yal na leen aji sax ji saxaw taxaw walla ndegam maa leen di bàyyi moos ngeen dem yóbbaale seen njaboot xam ngeen ne naru leen jub de mukk laa wax du dangeen di màggal aji sax ji dem leen bokk yéen ñiy góor ba loolu amee ñu dàq leen ñu jóge ca firawna aji sax ji ne musaa tàllalal sa loxo mu tiim réewu misra ngir njéeréer yi ñëw song réewu misra ba lekk gàncax gi ci réew mi lekk lépp lu fi taw yur bi bàyyi woon ba mu ko defee musaa tàllal yetam mu tiim réewu misra ay sax ji yëkkati ngelaw ca réew ma mu jóge penku yendoo gelaw fanaanoo ko bët set ngelawal penku la indi njéréer ya njéréer ya song réew misra mépp sam dendu misra wépp ba mu fatt taraj lu ni tollu mësula am te dootul amati njéréer ya daa muur suuf sa sépp ba gisee su ko suuf sa ñuul kukk njéréer ya lekk lépp luy gàncax mbaa meññee fi garab ku taw yuur ba jotuloon a yàq ba lenn lu naat desetul du xobi garab du gàncax te mboolem réewu misra firawna nag gaaw woolu musaa ak aarona ne leen tooñ naa seen yàlla aji sax ji tooñ leen baal ma àq bi yoon rekk te ngeen ñaanal ma seen yàlla aji sax ji ngir mu teggil ma rekk wii ay wure yi musaa bàyyi ko ca firawna tiinu aji sax ji aji sax ji wëlbati ngelaw la mu jege sawu am doole lool daldi fel njéréer ya sànni ca géeju barax ya ba luy niru njéréer desatul ci dendu misra teewul aji sax ji dëgëral bopp firawna mu të rekk bañ a bàyyi bànni israel ñu dem
yarub juróom ñeenteel ba lëndëm gu targa
gannaaw loolu aji sax ji ne musa tàllalal sa loxo mu jublu asamaan lëndëm wàcc ci kaw réewu misra lëndëm gu nit mën a daj ndax fat musa tàllal loxo mu jublu asamaan lëndëm gu fat wàcc ci kaw réewu misra gépp diiru ñetti fan kenn gisul sa moroom kenn mënula jóge fa nga nekk diiru ñetti fan teewul këri bànni israel gépp di leer firawna nag woolu musaa ne ko dem leen màggali aji sax ji seen jur gu gudd ak gu gàtt rekk a fi des seeni doom sax mën nañoo ànd ak yéen musaa ne ko danga noo war a bàyyee lu nuy sarxal sunu yàlla aji sax ji ak yu ñu koy defal saraxu rendi doomal sunuy gétt dina topp moos luy niroog we sax du des gannaaw ndax ci lanuy tànne lu nuy màggale sunu yàlla aji sax ji te itam li fekk nuy àgg foofa mënunoo xam lan lanu ciy def sarax màggale aji sax ji teewul aji sax ji dëgëral bopp firaaw na muta rekk bañ leen a bàyyi ñu dem firaaw na nag ne Musa neel mot bul fexe ba taxawati sama kanam ndax bis boo jàkkaarloo teeg man kere ngay dee Musa ne ko noonu la sax de duma jàkkaarloo teeg yow moos
yàlla waaj na yar bu mujj ba
loolu wéyee aji sax ji waxati Musa ne ko benn yarub mujjantal laay dellu wàcce ci kaw Firawna ak waa Misra su ko defee du leen bàyyi ngeen dem yam ca da leen fi far dàqe ba faw te neel mbooloo mi góor gu nekk ak jigéen ju nekk ci ñoom na sàkkoo ci dëkkandoo waa Misraam ay gànjari xaalis ak wurus ci biir loolu aji sax ji def waa Misra yéwéne leen Musaa sax ci boppam ku ñu naw la woon ca réewum Misra ca dagi Firawna ya ba ca baadoola ya Musaa daldi wax Firawna ne ko aji sax ji dafa wax ne bu guddi gi xaajee may wër Misra gépp te lépp luy taaw bu góor ci réewum Misra dina dee dale ko ci taaw bu góoru Firawna mi toog ci jal bi ba ci taaw bu góoru jaam bu jigéen bu féete wa wol boole ci luy taaw bu góor ci jur gépp dees na dégg yuux yu rëy jibe misra gépp lu mësula am te dootul am mukk waaye fépp fu bànni israyil dëkke dara du fa wokk nit ak mala su boobaa dingeen xam ne aji sax jee ràññaatle waa misra ak bànni israyil bu loolu amee mbooleem sa dag yi dinañu ma sujjootal si te naan ma demal yaak mbooloo mi la topp yépp su ko defee ma door a dem musaa nag won firaaw na gannaaw mer ba fees fekk na aji sax ji wax musaa ne ko li waral firaaw na du leen déglu mooy sama kéemaan yi war a fulandiwu ci réewu misra musaa ak aarona def nañu yooyu kéemaan yépp ca kanam firaaw na waaye fekk na aji sax ji dëgëral bopp firawna ba mu të bañ a bàyyi bànni israel ñu génn réew ma
lu jëm ci bésu mucc ba
aji sax ji wax na musa ak aarona ca réewu misra ne leen weer wii mooy doon ci yéen wi jiitu ci weer yi te na doon ci yéen weer wi jëkk ci at mi wax leen ak mbooloom israel mépp ne leen bésu fukkeel ba ci weer wii na ku nekk jëlal njabootam ab gàtt kër gu nekk ak gàttam waaye su dee gàtt bu ëpp waa kër ga dañu koy bokk ak kër gi leen gën a jege te nañu seet nu ñu ña toll doora tànn gàtt bu dëppook lañu mën a lekk gàtt ba bu mu am sikk te na di ku yu menn at mën naa doon xar mbaa sikket dangeen koy denc ba fukkeelu bés ba ak ñeent ci weer wii bu bés baa ci diggante ngoon ak jant bu so na mbooloom israel mépp bokk rendi seeni gàtt su ko defee ñu sàkk ca deret ja taxal ca buntu kër ga ñu ko nar a lekke taxal ca ñaari jëni bunt ba ak njël bunt ba ca kaw dañuy lakk yàpp wa cib taal lekk ko guddi keroog boole kook mburu mu amul lawiir ak xob yu weex nañu ko wàjj mu ne ñum bopp bi ak tànk yi ak yérey biir yi bu leen ci lekk dara lu ñorul mbaa lu ñu baxal bu leen ci wàcc dara mu fanaan te lépp lu ci des bu bët setee lakk leen ko ba mu jeex tàkk ni ngeen koy lekke nag nii la bu ngeen koy lekk dangeen di takku sol seeni dàll ngàbb seen yat te ngeen lekk ko ci lu gaaw loolu gàttu saraxu bi su mucc ba lay doon ñeel aji sax ji guddi keroog may wër réewu misra te may fàdd lépp luy taaw bu góor ci réewu misra nit ak mala te itam may mbugal mbooleem tuuri misra man may aji sax ji deret ji ci kër yi ngeen dëkke nag mooy doon seen xàmmikaay ba tax bu ma gisee deret ji musal leen su ko defee bu may dal ci kaw réew misra menn musiba du leen lor la aji sax ji santoon musa ak aarona noonu rekk la ko bànni israyil defe